أحلم بشهر الصوم والغفران nit ñi dañ cee teg seeni bët weer a ngi woo xam ne ku tuubul amoo layu ñàkk a tuub weer wu dugg si la fekk bépp fenêtre boo xam ne fenêtre mooy yàlla la day mel ne tëj nañ ko baar ya tëju na këri caaxaanukaay ya tëju na ña doon jaay seen bopp làqu ji nañ ña doon dox ci bitti di def yaramu neen tey sol nañ loo xam ne daanaka niqaab la jigéen ñaa góor ñi ñépp nga ci seen biiri kër su wiiteer ci ngoon jotee kon ndaje yi nga xam ne ndaje yi bàkkaaru la ak ndaje caaxaan la ak ndaje def lu bon yooyu yépp tey tere nañ ko jokk jolante ak ay saafuwante ay lëngoo yooyu yépp jeex na su ramadan duggee fekk yooyu yëpp jeex ba noppi nit ñi nekk ci tiitaange yi feebar boo xam ne kenn ku nekk da ngay yëg ne dee daa mel ne dafa taxaw ci sa buntu kër di la fuglu kon ma ne yey woo nit ki ngir mu tuub ay occasion yu daje tey la ab contexte la boo xam ne boo wëttuwul benn yoon lay jaare ci ak maas waxuma ci dunduk nit ki waaye ci ab bu leen naagu ndax yàlla kat dana jéggal jéggale mboolem bakkaar yi dana jéggale mboolem bakkaar yi kon bu leen naagu ndax sunu borom tabaraka wa taala kat mooy jéggalaa bi te mooy yërëmaa kon bi kon nag tuub leen borom bi tabaraka wa taala nee na bakkaar yépp lay jéggale kon eh, jaam bi warta naagu ci njéggalu sunu borom tabaraka wa taala kon Ramadan weeru tuub la rawatina wu Ramadan boo xam ne ñëw na yore melokaan yi nga xam ne yu yéeme la yu néew lu muy am la kon noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole nu jéggal noonu ñëpp sunuy rëcc rëcc ak sunuy bakkaar bindal nuy tuyaaba yëkkati sunuy daraja wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وكذا اعتكاف القانتين بمسجد فاسلك طريقتهم أخا العرفان وكذا اعتكاف القانتين بمسجد فاسلك طريقتهم أخا العرفان